NSTS nag lu Thiès xam bu baax a baax la usine bu yàgg la usine bu mag la usine la boo xam ne Thiès la si am yaakaar su doxee Thiès waaye dañu am yaakaar ne dëkk bi dina dox soo doxul tamit dañuy am dañuy am lu leen métti donc ñu ngi souhaité que NSTS gën a dox encore man yàgg naa ko xam ba ba ñuy def inauguration bi ay si année quatre-vingt-dix yi avec le président Abdou Diouf ba tey donc fekkee naa ko gis nañ ne ku am xarañte la si li muy liggéey kon nag yaakaar nañ ne dina moom dina mën a taxawaaltal usine bi ba mu mën a nekk bénéfice si ñëpp doom bi mu indi tamit indi na doom boo xam ne nit ñi dañ ko faral di indi carton ma daar nga daan gis wala gel antibactérien wala yu mel noonu saabu mais moom moo ñu indi tey matériel boo xam ne moom si service santé yi la jëm et soxla nañ ko tamit soxla nañ ay masque soxla nañ ay ay gants soxna nañ ay ay ay ay ay seen blouse yi xam ne ñuy sol loolu yëpp soxla nañ ko surtout ay blouse boo xam ne c' est antibactérien je pense que bëriwul lañ koy gis ah et loolu yëpp soxna nañ ko donc indi nañu don boo xam ne ñëw na waxtu bu war a ñëwee amal nañu njëriñ trop ñu ko si gërëm bu baax a baax ah di delloo rek di ñaax nit ñi ni mu ko waxee di ñaax nit ñi daal nañ taxaw rek seen taxawaay boo xam ne ku si nekk dama leen ko faral di wax ni su fi nit ñi ñëwee fees si dell ku nekk ne autorisation laa bëgg ma ne dafa mel ni dañ ne na ñëpp toog mais nga ne waaw c'est vrai na ñëpp toogee mais man daal man mun naa war naa mun a génn ah non non non ñeneen ñi nañ toog mën naa génn non non non na ñëpp toog ku amul vraiment soxla boo xam ne euh, soxla bu jàmp la toogal suñ ko defee fii ak ay semaine rek je pense que dinañ si mën a gis euh, euh, solution ñun nag danoo dañuy liggéey lu jëm ci tissu ak ay yére ñu fabriqué woon ay yére yoo xam ne pour médecin la ak pour infirmière ak ay masque yo xamné ñun ñoko ñaw fi ci Thiès pour ñëw jéglél ko gouverneur ak euh, manam équipe médicale bi nek Thiès le corps soignant pour jappalé leen ci euh, liggéey bi ñi liggéey ci xeex Covid 19 bi ñun nak ñu ngi leen di exprimer sunu manam sunu taxaway ci sen côté pour que combat bi ñu mëne ko ensemble gagné ko ensemble. loolu mooy suñu taxawaay. fi indi euh, chemise médecin la boo xam ne ñun ñoo ko liggéey ci luga en 2005 waaye tissu bi spécial la parce que tissu bi dafa am traitement antibactérien maanaam dafay rey bactérie kooku ñu ngi ko liggéeyoon pour marché américain mu desoon ci suñu entre suñu stock yi ñu indi ko may leen ko euh, defar nañ aussi ay blouse infirmière yoo xam ne euh, yu yu taaru pour infirmières yi yoo xam ne ñu ngi ko defar ci polyester coton. Euh, benen bi moy masque. masque yi nga xamné ñun ñoko liggéey fi ñu attribué len 1000 ñu avons 600 lënd ñu indi 400 ci dess 600 chemises médecin euh, infirmières yi mot 50 et masques yi 1000. Euh, voilà lool dal moy contribution ci xeex bi nga xamné ñu ngi koy ci Covid 19. mesures yi nga xamné autorités sanitaires yi. joxe nañ ko maanaam di raxas sa loxo di bañ a nuyu ak yooyu ñu respecté ko parce que xeex bi xeexu ñëpp la ñëpp ci war a jàpp pour que ñu daan feebar bi